fa moom maître Bamba Cissé nee na jamono ji non lieu la ñuy xaar ndax amul benn élément amul benn élément boo xam ne maanaam mooy taxal Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum viol waxuma la viol sax waaye lenn luy wane ne Ousmane Sonko am na lu mu séq ak Adji Sarr maanaam amul amul benn élément boo xam ne am na ci kon nag jamono ji ñun nag li nga xam ne moom la ñuy xaar maanaam ab non lieu yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee Sonko démb 11h30 la ak si fi nga xam ne mooy tribunal moom ak i avocat ma yi nga xam ne Ousmane Sonko ak sympathisants na leen toog leen seen kër consigne boobee gars yi dañu ko respecté ndax démb bi Ousmane Sonko di dem ca tribunal ba kenn topp ko amul benn mobilisation boo xam ne maanaam gis nañ ko fa gars yi ni ñu respecté consigne bi moo garaaw yéen a kaay gi délibération nee na Ousmane Sonko nag démb bi mu janoo ak doyen des juges daan na koy jox procès verbal original bu gendarmerie la ko Ousmane Sonko jox waaye tamit ginnaaw bi mbir mi xewee biir gendarmerie dafa am nag benn enquête boo xam ne amaloon nañ ko biir gendarmerie ci ci boo xam ne gendarmerie defoon na ko rapport Sonko xaw ma nan la def ba jot ci daan na koy jébbal ki nga xam ne mooy doyen des juges daal koy wax na ko Serigne Bassirou Gueye dafa modifié li nga xam ne maanaam mooy PV bi ngir nag chargement ngir taqal ma yéen a kaay gi délibération nee na Ousmane Sonko démb ki nga xam ne moo fa toogaloon parquet toogal fa procureur bi mu commencé laaj Ousmane Sonko Ousmane Sonko dana ko yow du ma tontu say laaj ndax procureur Serigne Bassirou Gueye ci complot bi la yéen a kaay gi di enquête nee na ñoo xam ne taqal na leen ci lu jëm ci mbir mi Ousmane Sonko nee na complot la ndax Serigne Bassirou mi nga xam ci la bokk waaye général Moussa Fall ci complot bi la bokk Mamour Diallo ci complot bi la bokk Dior Diagne maître ci complot bi la bokk Abdou Mbengue mi jiite woon ay jamono section de recherche ci complot bi bokk Macky ci complot bi la bokk yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Ousmane Sonko démb ba mu duggee ci tribunal bi dañu ne coppet ay garde corps am yóbbu leen mbuura jafe-jafe yi nga xam ne moo amoon ca commune bu Diass maanaam sa ci kii loolee moo tax ñu teg loxo garde corps yi Ousmane Sonko yéen a kaay na lii nag mooy kumba mu am nday Sall yoo xam ne ca diwaanu Fuuta dooroon nañu fa ñoom Fuuta Tampe te nag dara fekku leen ci yéen kaay gii di Vox Populi nee na Ousmane Sonko démb lu toll si ñetti waxtu yoo xam ne maanaam déglu nañu ko Ousmane Sonko nee na audition bi jaar na yoona yéen kaay gii di Libération nee na Maham Diallo doyen des juges maanaam gën ngaa bëri ñeenti question la posé ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko waaye nag bi ko Maham Diallo waxee na ko Ousmane Sonko ndax pare nga ñu daal di ko mu xool ko mu na ko Maham ko salle Ousmane Sonko na ko ay comploteur ay comploteur man dinaa jël sama deret di leen ko jox Ousmane Sonko daa di wax Maham Diallo na ko xam nga ne am na benn gendarme bu ñuy wax Rijal Rijal moomee nag waxtaan naa ak Rijal ndax Rijal bi ñu ma gardaa à vue ci section de recherche bu Colobane Rijal dafa ñëw na ma gis nga gis nga salon boobee nga xamante ni mooy Sweet Beauté maanaam fukki fan ak juróom avant mbir mi di xew maa ko doon surveiller maa ko doon garder te nag loolee général Moussa Fall maanaam moo ma ko santoon moo ma ko santoon Ousmane Sonko ne gendarme boobu ñuy wax Rijal muy liggéeyee section de recherche lépp la may expliquer yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na mbir mi jeexagul ndax dàmbooj nee na Ousmane Sonko ki avocat am yor nañu audio Adji Sarr yoo xam ne bu ñu ko génnee rek caaf xëma ndax audio la yoo xam ne Adji Sarr ma nga say weddi ne viol amul benn yoon Basirou Diomaye Faye nee na am na beneen complot boo xam ne ñoo ngi koy waajal jëmale ko si Ousmane Sonko waaye nag complot bii dañu koo bëgg a posone mu dee ndax nag Sénégal dafa am ñaari service ñaari réew yoo xam ne ñoo si bëgg a jàppale Sénégal yéen Mari Sagna nee na am na juróomi membre FRAPP France Dégage yoo xam ne maanaam nag dañu leen a agressé woon sa Malicounda boobaak léegi nag toll na ci fukki weer ak juróom ñett te nag amul benn yoon boo xam ne gendarmerie nag def na ci liggéeyam te moo ne porté woon nañ plainte waaye nag li tax mbir mu yeex loole nag général Moussa Fall la bu ñu sukkandikoo ci Guy Mari Sagna i Mari Sagna nee na am na gendarme boo xam ne li ñuy wax devise honneur ak patrie nekkul ci moom de waaye li nekk si moom mooy déshonneur ak parti waaye tamit am na ma boo xam ne moom jamono ji dafa bëgg a soppar ñi li nga xam ne mooy gendarmerie def ko milice bu APR te loolu nag jaaduwul la yéen a kaay gii di 24 heures ah, nee na nag Ousmane Sonko daat nay weddi tuuma yi nga xam ne gall nañu ko ci am ndoddama daat nay wax démb Maham Diallo na ko maître Pape Sow mi ñuy wax yi kookee nga xamante ni moo bind plainte bi ndax nag Dior Diagne moo ne ko Gabi moo bind plainte bi ba Gabi sax waxoon ne daf koy daal di porte plainte waaye nag boo muy capitaine Touré moom tim danañu ko dégloo confrontation diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko daan nay wax tamit doyen des juges Maham Diallo na ko rapport médical bi nga xam ne docteur Alfouseynou Gaye daan na koy def weddi na viol amul benn yoon loole na maanaam fan ngeen ko bëgg a tekk yéen a kaay gii de la témoin wax ne nag bureau ba tàngoon na jër ndax ki nga xam ne mooy Maham Diallo dafa mel ni ñemewul Ousmane Sonko ndax nag Maham Diallo dafa waajal boppam de gis nga gis nga Maham Diallo dafa takk li nga xam ne mooy loxo yi dafa band loxo yi ni nga xam ne moom la mbër yi di def band seen loxo yi bañ ku la nuyu loolee la Maham Diallo def niki démb waaye tamit bureau Maham Diallo boobee da doon xeeñ li nga xam ne mooy saafara saafara la doon xeeñ saafara la doon xeeña Ousmane Sonko bi mu waaj dugg ci bureau bi sax Ousmane Sonko da doon hésité waaye benn avocat moo ko xool mel ni lu ko piis na ko demal fii yàlla moo fi nekk yéen kaay gi tamit nee na Ousmane Sonko siis bi nga xam ne moom lañ ko tegala bi mu ñëwee toogu ci beneen siis la Ousmane Sonko nag daal daal di siy toog yéen kaay gi di réew mi